benn waxtu ca Ceng benn waxtu ca Mbaylaar benn waxtu ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg yi salaamaaleykum. Mamadou Mouhamed Ndiaye. ni ñu caxat caxatee woon tribunal grande instance bu Louga ci jamono ju ñu doon àtte sëriñu daara bi ki nga xam ne moo di ministre de la justice àdduna jëme ci la mu ca wax moo di yoon dana ca def la ca war force reste la à la ci jamono jooju union de magistrats du Sénégal ñi ngi sàkku ci na ñu ànd ak dal kon ci moomile mbir projet de loi bi jëm ci ne dañuy criminaliser vol fii ci réew mi adopté nañu ko démb ca conseil des ministres. kuréel yi nga xamante ne ji ñooy sàmm àq ak yelleefu doomu aadama ne dañuy xaar ba xam lan moo nekk ca boobile texte laata ñu ciy mën a wax bëccëg bi ñu jagleel wàllu càmm gi ci réew mi tey jii ci alxames yi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre ci leen ñu koy màggal ci xibaaru digg bëccëg gi daañu def euh, taxaw seetlu bu yaatu jëmi ci càmm gi ci réew mi waxtaane xontub jur gi ak njaayum ngoon ñu fële ca diwaanu Saalum naka nonet boor yi nga xamante ne ji sàmm yi amee nañu ko lu ci mel ne euh, sàmm ya nekk ci diwaanu Tambacounda Youssou Ndour génne album bu bees way ca nay loolee ñu koy coow ak mbambu ci mi ñu bari ci askan wi gis-gis biñ ci amee woro di ngeen ko déglu ci xibaaru digg bëccëg gi leneen lu ñu ciy déglu xibaar yi biiti réew lay doon ajaratu binta jàll moo ñu faram fàcceel nuyu naa la soxna la di wax ni yow de njaay mu dara doxatul ci diggante président gazwani bu mauritanie ak abdel aziz bi mu fa wutu ana kuy parti bu nekk ci nguur gi euh, di upr upr moom moo leen boole fekk patrice talon nee na ambassadeur bu union européenne ba fam nekk na génn ci réewam lu ma gën a gaawee gën ngaa yàgg dimanche. de Dethie Diop nuyu naa la. fay naa la Maodo Mouhamed Ndiaye yaa ñuy faram fàcceel tàggat yaram yi luñ ci mën jàpp. daañu àddu ca coupe du monde euh, footballu bu tefes bi yamee ca Paraguay. Sénégal li euh, gagne yi bëgg modi dem demi-finale ñu fas yéene dajeek euh, Portugal sunu gaynde yi ne daañu xar seen tànk tubéy ngir egg foofee challenge des champions waa fédération quoi ligue ne jël nañ motukaay yëpp ngir euh, final gi nga xamante ne am samedi jaar yoon te xumb final bobé US Gorée ak Jambar lay doon ku ca gagné 10 millions lañ lay jox basket ak tournoi qualificatif Jeux olympiques yi fas yéene am ci atub 2020 Sénégal xam ñan la fas yéene jongantel ci ay euh, groupe am waaye euh, donte sax Italie ak yeneen i euh, réew yi nga xamante ne bokk nañ ci boobee groupe am nañ ñoom daal siw nañ ci wàllum basket waaye teewut entraîneur sunu gaynde yi nee na loolee tiitalu ko. Georges Déthié Diop moo ñuy faram-fàcceel xibaaru tàggat yaram yi buñ ca noppee dinañ leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk tëjee xibaar yeeg ponk bu mujj mu di gis-gis li ñu ciy waxtaane tey ji wàllu càmm gi la ne ci jamono ji nga xam ne suñu réew di Sénégal xëy na di màggal sixième édition journée nationale de l'élevage tey ji kon la ni ma ko waxee xalaat bi ngeen am ci càmm geeg ni muy doxee fii ci réewum Sénégal moom la ñuy ci gis-gis ci rajo Futur Média ci njeextal xabaar yi Aliou Ba nekk ci machine bi ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Media ni ñu ko junjewoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaar yeeg la xewoon démb ca tribunal grande instance bu Louga jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngi fa doon atte sëriñu daara bii di maam Cheikh eh, Sëriñ Cheikhouna Guèye ak ñeneen ñoo xam ne eh, yoon da leen a tegoon loxo jam nag ñu demoon foofe ca tribunal ba nga daal di caxat-caxatee tribunal ba loolee ministre de la justice di maître Malick Sall àdduna jëme ci nee na xel nangu ko tey di ci yoon war a def dana ko ca def l'Erali Mohamed Ali Mouba. ministre de la justice garde des sceaux mer lool nu tribunal bu Louga bu japp ni ñi ko def foog yoon topp leen. ngay wax man dama ko comme yow mais luma mëna wax rek moy que effectivement lu ñaaw la. té ñi ko def kuñ ci japp inshallah dañu ko tégal tek ci yoon. tribunal bi dina ko atte dum ko wara a atte. Eh, ci procès bi ñu def dembu eh, ci alarba ji ci Louga procureur bi def laaj ñu daan kon ñaari atu kasso yo xamanteni ni ñaari weer yi dañ koy eh, teud kep ko xamanteni ni na ci yefi oustaz bi ki doon jangalé xalé bi ñu enchaîné soudeur métallique bi défar chaîne yi ak ñenti parents d'élèves yi waye nak ci procès bobu amna ay ay nit ñoo xamanteni dañoo forcé buntu tribunal bi caxat cakate lu fa né maître Sal, Sall jàpp ni loolu maître Sall yokk ni traitement bi ñu def xale bi xale bi ñu enchaîné ko loolu def ko métti dafa doy waar kenn du ko nangu ci Sénégal. am na gis na effectivement rafetul man ne man mii Moussa saa nekk talibé. kenn traité wu noonu mel noonu. ce qui fait que ni def loolu tam li ñu mun def rek mooy que yóbbu leen ci yoon. loolu lañ def. fu toll nii nag justice bi mi ngi wër ñi caxat tribunal bi waaye ba léegi nii jàpp guñu kenn maître Malik Sall Mohamed Ali Mbouba nangoo ci moom mi ngi koy conférence annuelle des chefs de banque du Sénégal. keneen ko àddu jëmee ci moomi le mbir moo di euh, Souleymane Teliko mooy président union des magistrats du Sénégal mbootaay gi jaboote magistrat yi réew mi muy euh, sàkku ci nit ñi ñu bañ a jaawale ndax layo bi woon démb ab doomu Sénégal di citoyen moo taxawoon ca kanamu yoon waaye du procès boo xam ne dañ koy def jëmee ko ci daara yi mu teg ci ne ki nga xamante wala ñi nga xamante ne ji jàpp nañ leen ci mbir mi ñu taxaw démbu tribunal amu ci kenn koo xam ne am nga ci ñoom liberté provisoire ñoom ñëpp ña nga kon ca loxoy yoon ñu déglu maître euh, Souleymane Teliko Euh, ñu déglu kon Souleymane coach ci micro Mohamed Ali Mouba. Nous bëgg wax rek ni que buñ koy atté atté wuñu dara atté wuñu religion attaque wuñu len li procès d'un homme la benn nit la ñuy donc nit ñi bu jaawale jaxase ne légui dañuy bëgg bi wala religion wala ñun ñëpp dañoo bokk ci dëkk bi bokku ñu gëm mais bu nit ki même su fekkee ndongo dara la bu defee loo xam ne dañ ko war a ci kanamu li tribunal muy décider ndax li def jaar na yoon wala jaarul mais faut pas que ñu installé benn confusion hein di yóbbu birmi fu mu parce que mbir mi du xeexu daara ko procès benn nit. Souleymane Teliko bu weesoo lim bi nga xam ne joxe nañu ko ci xalé yi ñuy mitital mo xam muy euh, dongay daara wala bokk gone yi nek ci mbedd mi li am moy lolé lu am la. li xewoon ci d'ara yi Njañ ba tribunal don ko lijjanti naka démb du lo rek lañu ci lañu ci gis euh, bari na it euh, ay xalé yo xamante ne ji nañu Abdoulaye Cissé ci patalé soxlawul sax di sori ngir mën a teg bët njombe yi nga xamante ni nii dañu koy tekk gone yi gën a féete ndaw moo xam ay taalibe la wala gan gaa bari sax muy xale yi taxawaalu ci mbedd mi ndax boo demee atum 2016 yéemoon na Sénégal yépp ci bi nga xam ne polisu Jurbel tegoon nañu loxo benn sëriñu daara bu ñu woowee Omar Silla moo ko ñaari nit ñoo xam ne ñoo ko dimbale woon ñu defar ay monote ci ab mbaaru tëgg tënkoon xale yi li mu taalibe yi tolloon ci ñaar fukk police wane woon ko mu yéemoon nit ñi bu lu weesu 2016 diggante atum 2017 ba 2018 ci chiffre yoo xam ne ni yu officiel la jàpp nañu ni am na juróom-ñetti région yoo xamante ne ni mbir yi ni mel xew na fa moo xam ndakaaru gii la Diourbel Fatick Kaolack Louga Ndar Tamba ba Ceeskaay bii ba tax na organisation yi xeex wàllu àqu xale yi ak seen yelleef moo gouvernement bi ñoo bokk benn kàddu jeexal taxawal loi bi nga xam ne nii mooy tënk statut këru daara yi donc moo ñu ci mën a génne lu weesu loolu nag daan yi ñu gën koo diisal ndax gën kaa bari bari na lu nit ñi di maslaha ci lu dal ci kaw sëriñ daara ñu nëpp nëppal ko ñaan ci njekk ba ñu bàyyi Abdoulaye Sissé, Njital euh, association SOS consommateur euh, njital euh, di maître Massokhna Kane xamle ne ak yokk gog dinañ ko def ci frais délivrance document justice moom ma soxna kan ne état bi jàllale na kon décret bi frais yi nekkoon ci deux mille quatre cent ma nga léegi ci huit mille francs CFA eh, wax na it jëmee ci li nga xamante ne ji mooy boobile eh, ak yokk ñu koy wax ci njëgu courant bi nee nañu dinañu ko dem yobu fa mbaxana doone benn duñu toog di ko seetaan moom ma soxna kan ay kàddu la yoo xamante ne ji mi ngi ko yëkkati tey jii ci RFM moo ne newoon ganu RFM matin. El Hadj Ndiogou Diène mbir yi nguur gi wax ne moo tax njëgu courant bi yokku dara taxawu ci ci gis-gisu maître ma soxna kan mu weddi ko ba mu set wicc moo xam njëgu pétrole bi la wala bokk doxal prix yi nee na loolu yëpp dara amu ci. l'État utilise à travers des sociétés comme ay Sénélec ak yooyu des mensonges d'État te loolu mën nañ ko démontrer parce que directeur général bi argument yi mu utiliser yëpp amu ci benn boo xam ne bi fondé do infondé maintenant daf ni cours pétrole cours mondiaux yi moom moo tax dépense su Senelec yokku et que dépense yi bu yokkoo dafay entraîner perte pour moom ma koy wax ni cour mondiaux yi li mu ci wax amul boo duggee ci internet y a des sites officiels boo analyser Cour mondiaux yi nga xool historique bi maanaam li passé parce que wax na 2016 ni 2016 dëkk yu bari yi wër Sénégal ak yooyu dañu amoon ay problème ndax cour mondiaux yi c'est faux. gannaaw yokk googu nag avocat bi narul toog di seetaan dàqul xeex bi ci wàllum yoon. commission de régulation boobu. seen décision bii ñu mujj jël nii xam ni le 19 novembre lañ ko jël le même jour bi leen Senelec saisiré le 19 novembre ñu jël ko décision cinq pages bo xam ben page bi visa la ñaari page c'est l'exposé des faits ben page bo xam analyse la nee ak ben page bo xam tarif yi lañ ci def décision bi baxul té ñun nañ seet yeen moyen lañu mëna am pour attaquer décision bo parce que c'est pas fondé jaaduwul yokku njëgu courant bi nak li nguur gi waxul askan wi pour mettre ma soxna kan modi di ne nguur gi jamono ji dafa soxla xaliss té anam yu ne le koy wute dem sax ba yokku frais nit ñi di soxla ci walum yoon en catimini ils ont pris une décision parce que le personnel dañu wara jox personnel bi ay avantage mënuñu leen ko jox ñu créer benn fonds boo xam ne bi décret bi ñemewuñ ko sax publier créer benn fonds mais c'est appliqué créer benn fonds boo xam ñun justiciable yi ñun ñooy fay pour alimenter fonds boobu booy wut kayit boo demee tu vas payer deux fois plus ou trois fois plus. yokk gi ñu tambali tàmbali ko doxal donte sax décret bi mun buñ sukkandikoo ci maître ma soxna kan mu nak lolu, ñi di di kat yi nek ci walum yoon rek la ci seen affaire di Ñom ñoom kat yooyu nekk ci walum yoon tontu nañu maître ma soxna kan kaddu yi nga xamantene ji yëkkati ko eh, ci eh, li ñu wax dal moy eh, ñom ñi liggéeyee ci walu justice bëgg nañu kon seenu nekkin di gën di yokk di gën di ñoŋ rawatina li fayeko té lolé bokk fañ ko mën a jëlee bokk na ci yokk gi ñuy def jëm ci euh, frais de délivrance yi ñu déglu maître Aya Boun malik Diop mooy njiital SYTJUST di syndicat gi jaboti liggéeykat yi ci wàllu yoon am nay kàddu yooyu dénk na ko ci Alaaji Njogu Jën maître ma soxna kan dañoo gis ne daf ñoo teg bët saa bu amee occasion wax day dal ci kaw travailler de la justice bu ñuy grève day wax grève bi yoon lu ñu am mu teg ci bët foo ko ma bii ñuy wax du création bu bees ñu ngi ko créé depuis 1992 foo commun mi ngi am li nga xam ne yokk yi yokk nañ ko daaw dafa méngoon ne gouvernement bi dafa jëloon benn mesure boo xam ne dafa wàññi woon frais de nantissement yi pour compenser moo tax mu defoon ay yokk yu ndaw ah ñi ñuy xamal nag ne travail de la justice yi dañoo war a am payoor bu baax waaye nag mënuñu comprendre tey benn avocat saa bu ñu waxee rek mu attaqué les travailleurs de la justice li mu def loolu du dëgg du yoon te dafa ñaaw yokk bi am na mais bu mu def amal amalgame bu li nga xam ne dañ koy jël dugal ko ci keesu état bi fonds commun des travailleurs de la justice lay alimenté combien de que comme parce que c'est le travail de la justice l'immunité, li de liggéey daf ci wara gagné. Mom lim la waxul avocat bi mu mais chaque jour mu gagne ay dizaine de millions est ce que lolu mom japp na c'est excessif c'est dizaine de millions barem barem bi nga xam ne moom lay faye ko gouvernement bi moo moo bind décret jox leen ko kon moom na toppatoo la nga xam ne gouvernement bi jox na ko muy dugg ci poosam bu excessive na ko wàññi te bàyyi ñi nga xam ne bàyyil ñu li nga xam ne mooy suñu payo ñun suñu payo dafa ndaw kon nañu nañu ngir yàlla nañu bàyyi ñu am suñu li nga xam ne ñun ñoo ko moom pour suturlu xibaar bu ñu jot léegi mu di directeur de publication bu journal bii di L'As di Amadou Ba moom ak journaliste bii di Awa Bousso rédactrice en chef bu L'As convoqué nañ len ci DIC division investigation criminelle tay ji bu 4 h ci ngone à manam 16 heures la len fa plainte bop l'homme d'affaires Bidi di Serigne Mboup moko déposé plainte ba tax ñaari journaliste yoyé. directeur de publication Boulas Amadouba Amadou le journaliste Bidi Hawa Bousso rédactrice en chef Boulas. convoqué nañ len ci DIC division investigation criminelle tay 16h. Radio Futur Média xibaaru digg ba h 13 h 13 ak RFM kumpa na. ay kuréel yuy taxaw ngir àq ak yelleefu jigéen ñekk gune yi joxe nañu seen xalaat ci. modification yi nga xam ne indi nañu ko démb ba adopté ko ca ndajam conseil des ministres mu jëm ci loi bi tere viol ak pédophilie fii ci réew mi ñu gis ne loolee lu baax la waaye ñoom association yi bala ñu ci mën a sori dañuy xool ba xam texte ba ana lan moo ca nekk soxna natambay benn jéego bu ñu def jëm ci gën a diisal daan ci ñi nga xamante ni dañuy sàkku jigéen ñi wala tout tànk yi fii léegi lépp di yemb AJS di association des juristes sénégalaises di rafetlu projet de loi beeg nañ ko adopté ca conseil des ministres. lu ñu doon sàkku la lu ñu doon xaar la ñëw na ñu ngi sant yàlla bu baax di ci kontaan. am na coow loo xam ne gën naa yàgg sax li soxna yi di ñaan. ci seen àq ak yelleef muy kañ la ñu war a wax ni sàkku dafa am ki jiite AGS nee na laaj boobu le nag loi 1999 tontu na ca ba noppi Abi Diallo. ba ñu modifier code pénal sénégalais modif ci la ñu wax viol wax ko naka lay naka lay ñëwee ak lan mooy viol yan acte yoo xam ne su amee viol am na wax condition circonstance aggravante bu fekkee ne viol bi ci xale bu amagul fukki at ak ñett la xew léegi na infraction bi crime la donc foofu la différence bi nekk ak daan yi nga xam ne ñoo gën a tarle gi si teg ak procédure d' enquête bi parce que crime du benn enquête rek mu mu jeex crime dañ koy enquête daal di koy enquêtaat. ci gis-gisu Fatou Diagne Senghor jël viol wala pédophilie def ko ay crime loolu dina tax ba képp ku dem ba koy xalaat sax di nga ko jël teg ko ci suuf moom directrice bureau Afrique de l'Ouest ONG article 19 di ci dolli ni amul lenn lu ñu war a layal ñi nga xamante ni ñoom ñoo sàkku jigéen wala tout tànk te ñu àtte leen ba noppi. affaire viol moom kenn warul ko nekk di ko woyofal lu la loo xam a abusé xale yi nga xamante ne xamuñu dara ñu ngi nekk ay xale soxla ku ar len ñu leen di def yoo xamante ne day yàq seen àdduna di ñaan rek ne mu atu ba pare bu bu ñu ko adopté ci assemblée ba après ba ñu def rectification yi war a ba pare ñu fexe nag ba bu mu nekkee loi ñu koy appliqué. mbootaay yi xeex ak ak yelleefu soxna yi ak tout tànk yi wala ay ONG ñoom daanaka xaar nañu juróom-ñaari weer diggante njiitu réew mi ba mu leen joxee kàddoom ak ba ñuy adopté projet de loi bi ci conseil des ministres ñu am yaakaar ñoom ñëpp nag ni procédure ba ca assemblée nationale diir bi dina gën a gàtt. yàgg yaakaar naa ne ñoo ne ci délai boo xam ne délai bu jaadu la pour ñu mun ko appliquer. soxna Naata Mbaye tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru euh, novembre mooy bés bi ñu jagleel wàllu càmm ci réew mi di journée nationale de l'élevage xew wi kon di amee fële ca diwaanu Kayel di doon ci teewaayu ci réew mi Macky Sall xew-xew boobe waaye ñun dañ cey jaare waxtaane càmm gi ak i jafe-jafe yoo xamante ne ji sàmmkat yi am nañu ko euh, bokk na foo demee bu me foo boo demee fu mel ne ca Kaolack ñi nga xamante ne ji ñooy borom jur gi lu ñu xonte seenu jur lek léeg da leen di jurali jafe-jafe sabab li mooy saako mboob bi wala saako ngooñ bi yokku na jugee na kon ci juróomi téeméer léegi ma nga ca juróom-ñetti téeméer euh, loole lay jar jamono ji boole cee kit euh, ñi nga xamante ne ji Euh, ñooy ñoo koy jaay gis leen lu jafe la reportage Ibrahima Diame. Abdoulaye Diaw di yëngu ci njaayum ngooñ am na ay ati at. yàgg naa liggéey ci ngooñ nag li mooy sama liggéey. ñoo ko fekk fi ñuy du duppee marché syndicat bu Kaolack muy jaay détail. ñu bari ñu bari ñu ci ne fi ñu ci waaye nag lim ñu xamal moo di ko ne ren ci le ngooñ taxu koo bari noonu le te tàmbali na di cher ngooñ de doon yomb ay 2000 2500 ba seere ba wala 1500 ren ins yi ñu toll kaa ko ngi jar 4000 francs 4500 bu ci gën a yomb mu ngi toll ci ay 3500 te fekk sax tool bi nu melut noonu waaw waaye bu tool bu baax bi mu ngi dem ba 4000 ba 4500 heure bi moom daan na gën a yomb lii lool soriwul beneen jaaykat Rimé ay sàkku moom xamal ñu ne fi mu 4000 3500 3750 jamono yi jënd. ren bi nan la ndax na wala ah daal la ci ren. lay ci ren. waaw. lan ah nawet bi ni mu demee rek. ñu bëri nag di yëngu ci njaayum gooñ ba am ñu jàpp ne dafa bari xaalis waaye jaaykat yi la xamal ñu ne nag du nuñ ko foogee noonee la amee. xamam xaalis bi naam man ñoo wax amul xaalis comme que ci la ñuy jàllale suñu waajur di ci jàllale suñu kër gannaaw yàlla ak yonente ji ci joxe suñu dépasse mën nañ wax ne wax dëgg sant yàlla ñu ngi fortaatu. njaayum gooñ ñu koy def ci njaayum gerte gi waaye différence bi moo di ne fii amul prix officiel bu nga xamante ni nguur gi moo koy fixé Ibrahima Diame Kaolack rajo Ibrahima bu dee sàmm ya ca diwaanu Saloum lu ñu dundalee seenu jur moo leen jaaxal sàmm ya nekk ca Goudiri ak li ko war ñoom ay boro leen sonal bor yooyu sax dafa dem tax na ba banque bi nga xam ne moom la ñu teg tegal ñi yëngu ci wàllum mbay ak sàmm mu di CNCAS mënatuñ faa leb dara ndax lañ jot a leb la leboon jotuñu ko fay loole doon jafe-jafe bu leen sonal sëkkatal leen ku leen ci dimbali ñu jël ci ni ñu ko waxee ñu ànd ak Moussa Oumar Gueye bu fekkente ni tey jii am na benn jiixi jaaxa boo xam ne des na ci xelu ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmmkat yi bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne seetlu nañ ko ci département bu yi ndaxte kat am na ci at yi nu génn waa caisse nationale crédit agricole du sénégal léegi ñu koy wax la banque agricole du sénégal ñoom dañu jëloon ay bor daal di koy lebal ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum càmm ci département bu guddiir yi ñu doon waajal lu jëm ci wàllum opération tabaski waaye gis nañu boobu ak négéeni si nanguwuñu fay wala mënuñu fay booboo tax nag lépp lu jëm ci wàllu yëngu-yëngu opération tabaski ak lu jëm ci wàllu càmm xaw a sooxe ci biir département bu guddiir yi nekk ci diwaanu tambacounda mu jot ñi nga xam ne ñoo toogal nguur ak ñi nga xam ne ñoo ci war a mën pexe ñu daal di koy def ndax dekat boobu ak ni gën si gis nañ ni wa caisse nationale crédit agricole tay ji ñu koy wax banque agricole du Sénégal ñu yéene jël ay copar dal di koy lebal ñi nga xamni ñom ñoy ñooy sàmmkat yi nekk ci département bu Goudiry sàmmkat yoy ci jamono ji itam amuñu ay kom yu leen di mëna tax ñu mëna a demal seen bop tax nak ñu war ci indi safara dal di gindi bu ñu amee ay bor ñu dal di koy fay ngir yëngu-yëngu yi dal di tàmbaliwaat ndaxte kat bu ñu fàttalikoo département bu Goudiry nekk na benn bërepp bo xamni ñi nga xamni ñom ñoy mang kat yi ko ci muri Mauritanie wala ci Mali saa su ne dañuy dikk ak seen i jur daal nekk ci zone de pâturage yi nekk ci bundu lépp loo xam ne nag dañ ko fay jëfandikoo nekk na li nga xam ne moomeel ci Sénégal bu ñu jàppalee sàmmkat yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñoom itam ñu am ci loolu dina xam ne dina leen jëriñ ci wàllum koom ak lenn li nga xam ne dinañ ko mën def ci seen i gafaka waaye itim ba tey daal di jubbantiwaale bu baax a baax lu jëm ci wàllub càmm ci biir département bu Goudiry Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Media. Moussa Omar Gueye fàttali auditeurs yi ne gis-gis tey jii ci njeextal xabaar yi ci wàllu càmm googee la ñu koy jëmee fàttali ne bëccëgu tey gi it mooy sixième édition journée nationale de euh, l' élevage war a ànd ci waxtaan wi ci kanam tuuti ak Mamadou Aliou Ba di éleveur euh, dëkk ca Daara Jolof ak ki nga xamante ne ji moo di Diop di expert ingénieur ci wàllu travaux de l' élevage loolee ci njeextal xabaar yi lay doon. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. waxtaanee wàllu caada ci xibaaru digg bëccëg gi ak way wu bees woo xam wala boog album bu bees boo xamante ne ji Youssou Ndour génnee na ko kaset ba nag bari nay morsa yu ci nekk waaye benn ngi ci bopp ba mu génnee ba léegi moom la ñuy waxtaanee mu di morsa bii di nay ngóor ñe gis-gis biñ ci am jigéen ñe gis-gis biñ ci am Anna Rocha Lita Lopez Faye. man bëgguma góor kuy kof non dañuy sànni xeer moom man loolu laa gis moom. Lamine bokk na ci euh, xale góor yi nga xamante ne wéy bi metti na leen loolu mu koy wax. tey jii nii xale bu jigéen boo ci wax mu ne fi mu toll nii góor yi dañoo lay nangoo noo joxe nangam sangam mooy loolu. yow xanaa da nga ci gis sa bopp. waaw man kay gis naa daaw ndax xam nga rek. gaay moom mooy loolu. xaritam bi di euh, Seydou moom itam àndul ak li Youssou Ndour wax. nee na jigéen du lépp lum la laaj rek nga koy jox. genn wàll gi ngay joxe te genn wàll gi bu doon subaa doo am dara ndax dëkk bi dafa metti mais jigéen lum la laaj c'est parce que daf ko soxla tamit. daf ko soxla waaye bu war na mën a laaj lépp. bu dee liggéeyul nag. man mi damay góor góorgóorlu liggéey dina laaj yem ma jox ko lu yem ñu ñu dund pour ëllëg pour doom. ko wax. mu ne de am na yenn góor yoo xamante ne nag ñoom ànd nañ ak Youssou Ndour mais nag dafa fekk nay bi ñuy wax ci yenn góor yi dafa am lu ko lal Abdoul Aziz Samb transitaire la. majoritairement je pense que ne actuellement dañu xaw a téye seen loxo tuuti dañu xaw a nay tuuti parce que bon. dëkk bi dafa métti dafa tar. ñenn ñi aussi seen am xaalis yombul yomb boobu. dañuy souffrir pour am ko donc buñ koy dépenser aussi war nañ ko mën di réguler di ko contrôler. jigéen ñi itam. du ñëpp ànd ak Youssou Ndour ndax bëgguñu ñu wax seeni góor dañoo nay muy femme de ménage mbay jaaykatu légumes ñu fekk leen ca centre ville tey ji ci suba ñàkk pexe mooy tax góor di nay. góor gu nay kooku moo wax noonu loolu dëgg la. mais dëkk bi dafa metti xam nga avant ak léegi duñu benn. loolu moo tax ñuy laajte weccit mais góor gu nay moom baax. mag ñi moom nay ñu woon dañu daan def ba mu baax. loolu laaj ñu joxe. lan dëkk bi metti góor yi moom sens la rek am na ñoo xam dañoo nooy ñoo xam dañoo am na ñoo xam nag nayu ñëw dañoo yorul. donte ne nag parole woy yi neexul ñu bari Youssou Ndour artiste bi moom mu ngi ba tey seen i xol. RFM bitim réew. te lu dalal ajaratu Binta naa day jaawale nay ak ñàkk nayu ñu de dañoo amul. yow da ngaa nayul di njaay xanaa ma waxati ko rek. ay ca soxna Binta xibaar bi ci réew yi. ñu doore ko gànnaar ak dënn ya fa jóg mu di tension bu am ci diggante président Gazouani ak euh, ki jiite woon réew ma di Abdel Aziz. waaw daanaka déggootuñu tey sax moom ka ki mu wuutu foofu wala ka fa wuutu euh, Abdel Aziz wala si boppam euh, tey ñëwul ci anniversaire bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal tey seen feetu indépendance Mauritanie ndax nag dafa mer ndax président Gazouani dafa. dafa bëgg a parti bi te moom itam nee na dafa bëgg a contrôler parti bi nga xamante ne euh, ñoom ñoo ko bokk te mu nekk ci nguur gi leeral yeeg Mohamed Diop ca Nouakchott. coow laa ngi door ginnaaw bi président bi fi woon dellu si ci réew mi ba noppi jiite réunion ba parti bi na ci nguur gi di IPR ci la député parti bi xaajaloo. ñenn ñi japp ne Assis moo war a jiite parti bi ndax moo ko sos ñi ci des japp ne mbir nañ ko rek ki réew mi di Gazwani dem nañ sax bay laaj ñu luncutu daal di saytu ni nga xam ne nag moom la Assis moom doon yore réew mi bi cool lëmbee nag di président Gazwani moom discours am bi mu doon amal ci euh, feetu indépendance bi tudd ci benn yoon kii di Mohamed Ould Abdel assis muy gule ci koo xam ne nag fu mu tollan mu ngi daan tagg rek ni Assis doon jiite réew mi ba far sax démb Gazwani daal di jëlab dogal daal di tegg njiital waa BASEP maanaam ñi nga xam ne ñoom lañu dénk nag kaaraangeeg njiital réew mi di ku jegewoon lool Ahmed Ould Abdel Aziz Aziz nag yéegul jàbbi ci mbir mi waaye nag boo dina fête ak indépendance yi nga xam ne bokkoon na ci invité yi Mohamed Diop Nouakchott RFM bawoo Ghana dem ci réewum Bénin Union européenne sen ambassadeur ba fa woon dàq nañu ko. Patrice Talon du président de la République euh, bu Bénin euh, dafa jàpp diplomate européen bobu yamul fa nu ko da fay duggal loxom euh fo ne waru ko def te itam dafa lool opposition ba motax mu ni ko euh, na jóge kon ci mom Olivier Net gën ga dimanche ji 1er décembre Union européenne ñu jëlé xibaar bi ci africanews.fr point li yëpp jaruko won ndax nak Bénin. ak union européenne daal euh, dara yàqu ko mu mel ni kon euh, fan yi du ñëw bu ñu moywul euh, diggante union européenne ak beneen dina xaw am tuuti. kon Patrice Talon da koo taloone tulli ko ñaar yooyu la boole ñu dem Nigéria lu ëpp wala bokk junni détenu ñu caabi féete woon ginnaaw. ñuy njortu ne dañoo bokk ci waa Boko Haram dañ leen a libéré. dañ leen ñu jëlee xibaar bi itam foofu ci euh, RFI ndax nee nañu euh, ñoom nguuru euh, Nigéria dañoo def enquête jàpp ne jàpp ñii ñëpp nag daal def enquete ba noppi xam ni bokkuñu ci li liñ leen di tuumaal ne ay terroriste lañu bokk ci Boko Haram moo tax tey bàyyi nañ leen ñu jege ci junni juróomi jigéen ñoo ca bokk ñu ngi leen yóbbu woon ci ay ci prison militaire bi nga xam ni mu ngi ci diiwaan boobu ñuy wax may jean yi Bemba procès amoon ca CPI ñàkk na ko. waaw ndax nag euh, tey cour d'appel dafa confirmer euh, peine bi nga xam ne première audience ba tëjoon nañ ko moom Jean Pierre ben, Bemba benn atu kaso boo xam ne da koy tëdd Jean Pierre Bemba nag nekkoon na euh, vice président bu RD Congo dañu ko condamné woon ca 2017 ci mbiru subordination témoin maanaam jëm daal di jéem a indi ay jiixi jaaxa ci biir témoin yi waaye nag tey jii même appel bi du tax mu delluwaat ci kaso ba ndax moom Jean Pierre Bemba te tëjoon nañ ko di euh, fukki atu kaso yoo xam ne tëdd na ko ba noppi. ñu dem Maroc ak euh, wàllu koom lañu fay waxtaanee mu mel ne nee nañu daal li nga xam ne ñi ngi koy gis réew moo di ko doxee ci wàllu koom dalutum xel. waa ndax 2 pour cent si euh, croissance lay dañu jàpp ne moom lay am mille vingt fekk 2019 bi am na 2 pour 2 point 4 kon nag dañoo gis ne daal croissance ba du baax ñi ko wax mooy ñi seen xam-xam màcc ci wàllu koom dañ ciy déglu ca Casablanca Khadim Mbaye mbiccombalo bi am ci diggante Chine ak États-Unis jëm ci wàllu commerce dina am ay njeexital ci économie marocaine ki gisee noonu di ab économiste di Stéphane waaye du loolu kese mooy waral ay jafe-jafe Maroc

croissance bu royaume chérifien day wacc ba 2 ci atum 2020 mu wuuteeg loolu nag 3,3 yi nga xamni mom la banque mondiale waxoon Aïssi Guerati mom économiste la ci capital marocaine bi. pour le Maroc on a. koom comme Maroc bi dafa joggé ci 2,4 ci atum 2019 bi te 2 pour la jëm ci 2020 bi ñu jëm. li nak lu ko waral moy contexte bi nga xamné amna jamono ji ci aduna bi. waaye lu ci mënti am rek. ay coppite ay réformes yu wóor moom rek ci mën a Maroc. en fait il faut que ñëpp gis ci seen bopp loolu moo tax euh, ba dañoo wara développer ay formation yo xamné ne tax ba ndaw yi mëna am xëy lépp li nga xamné ne na pour ndaw yi am xëy ci système de formation bi dañ ko wara indi indiwaat. mun nañu joxé ab euh, misal moy système éducatif bi so gissé parents yi ñom ñoy fayal seen dom financement té lolu ab dépense benen la lolu tax bu budget bi dé gëna aggravé wu. ça aggrave le budget. way nak dafa melni ni mbir mi du Maroc kessé ndax té bokoy méngaleeg Tunisie mom day jóge ci 2 ci atum 2018 dem ba ci li nga xamni 0,5 ci at mi ñu dëgmal Xadim baye Casablanca radio futur media waaw kay kon fi ñu yam ak yeen fi ma ngi lay gërëm bu baax di la Santa Ajaratu Binta Diallo. Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Mamadou Mouhamed Ndiaye. ànd ak yow ci wàllu tàggat yaram doore ko coupe du monde beach soccer mu mel ne gaynde Sénégal ya ca bokk ñoom fi mu ne seen yitte yëpp mooy nu ñu mën a def ba yegg ci demi-finale yi. loolu lañ bëgg waaye bala ñu ko def faw ñu dóor Portugal mi nga xamante ne jàpp nañ ni bokk na ci euh, équipe yi gën a fës ci boobee tournoi waaye gaynde yi gëm nañ ne mën nañ kaa def donte sax seeni manager jàpp na ne match bu jafe lay doon ñu dem euh, ca Paraguay fekki ndaw lañ fa yebal Soda Thiam. Sénégal nak dina jàkkaarloog kenn ci favori compétition gile mu di ab équipe bo xamanténi nak nag Sénégal yi d'ajawon woon na nag ñom lu ñël jeu mondiaux de la plage yi buñu sukkandiko ci manager général bu Sénégal pression bi ci côté portugais yi lañ koy gis Ibrahima Ndiaye Chita. gis na leen une fois deux fois trois fois d'ajaw daje ñom bi passé ni. même si on a encaissé huit et même si tu vois le match. qui ne reflète pas la physionomie. il faut que gos yi xam loolu nañu ci suuf la ñuy si tu as une technique individuelle qui est parfaite da nga tu gën si tax mais on ne va pas les laisser jouer non pas du tout Bon, amee couille khalat tuuti ñoom la war a doon. Portugal nag bi moo nekk juróom-ñeenteel bi yoon muy amal coupe du monde te gis nañ ni yéeg na lu bëri yoon ci podium bi nekkoon na ci ñetteelu place bi atum 2008 2009 ak 2011 ci ñaareelu place bi atum 2005 nekkit champion atum 2015 bi mu organisé mu ni kon ab équipe boo xamante ni am na expérience bu baax kay tàggat gaynde Sénégal gi di dellu si ca na seen adversaire du jour di doxale ñoom boo xoolee dañuy jël bal bi di ko benn bennal si ginnaaw di la nelawal la parce que ñoom vraiment dañ technique donc nag war nañ xale nañ

le plan mental, préparer les gosses, et puis qu'ils sachent que c'est pas encore fini. Ils vont rester encore davantage ici. les Portugal c'est un objectif. champion d'Afrique B du Sénégal moi, jàkkaarloo kon ak champion d'Europe du Portugal niki alxames gi pour 20h50 GMT jotee Mouné Sodetiam, fiti Sode Paraguay radio Futur Media. dellu si Sénégal football au Sénégal fédération Sénégal bu football la ligue bi ñoo final challenge des champions football euh, samedi lañ koy football. diggante US Gorée ak jàmbaar bu Saly Portudal lay doon ku gagné nak euh, da nga am lu tollu ci fukki millions ci sunu koppar pour dem seetaani boobee match jarut ngay euh, génne benn dërëm ndax du ko jar entrée gratuite lay doon wayé wa fédération ak wa ligue nee jël nañ motukaay yépp ngir mbir ma jaar yoon fête bi rafet té ñëpp jëlé fa mbégté buñ fa joggé ñu déglu njiital commission organisation bu fédération sénégalaise bu football Malick Thiam il y a une disposition pour faire bi neex rafet vraiment une très grande fête du football euh, euh, sénégalais et de la jeunesse président de l'initiative donc comme le d'habitude rek service conséquent boo inchallah depuis du 11 heures pour Arménie, nit ku séance si li nga innovation quelques difficultés de lumière au niveau du stade donc ñu heure yi place bi maintenant à 14 heures 30 et la grande finale à partir de 16h30. donc pour ñu trop trop trop si le bi donc léegi président bi ñu jëlee aussi décision bi da ko def entre libre et gratuit pour mën a permettre la jeunesse de Dakar et dans la banlieue mën ñëw assister si final boobu hormis loolu aussi tamit moom euh, def na jox équipe yi récompense équipe vingt huit millions ko si six équipes yi donc équipe nga xam ne ñaari équipe nga xam ne toog nañu mu ngi ci juróom cinquième ak sixième ku nekk am nga un million cinq cent mille jox nañ encore ba pare équipe bi nga xam ne tamit mooy ñuy jouer troisième ak quatrième place bi ki nga xam ne mooy jël quatrième place bi moom dina am trois millions cinq cent ki jël troisième place bi dina am cinq millions donc ñaari finalistes yi ki nga xam ne dañ ko gagné dina am six millions cinq cent ki nga xam ne moo gagné dina am dix millions plus ay auto récompense waxtaanee wàllu Ligue des Champions ginnaaw fële ci Europe ginnaaw ñeenteelu bëccëg bi nga xam ne tëj nañu ko démb tey nag euh, rakk ja moo aaye mu di Ligue Europa bi. bokk na ci ndaje yi am tey jii nii FC Séville di dalal euh, Karabakh ak Dansk Malmo di dalal Dinamo Kiev FC Bal dem fekki Krasnodar Krasnodar euh, sport di fas yéene laale ak Getafe Sporting Portugal ak PSV indoven lay doon Celtic Glasgow Rennes bu may ñang Arsenal fas dalal dalal ñi nga xamante Francfort Standard de Liège dem fekki euh, Victoria Guimarães euh, Young Boys de Berne FC Porto la fas Football, Espagnol Barcelone nak di dalal ñi Moscou saint Etienne euh, di dalal Gantoise Istanbul Sehir, ñoom ak AS Roma lay FC Astana di dalal Manchester United wax nga ko juróomeelu journée bu Ligue des Champions dembo lañu tëj journée boobee waaye dañu taxaw ci match bi nga xamante FC Barcelona ak Dortmund ñetti bal ci benn la Barça Dortmund mu nekkoon nag juróom match bu euh, Lionel Messi ak euh, Barça te démb euh, xam na but match mu dugal lu ci but ak fukk ak euh, ñett euh, def nag lu toll ci ñaari téeméeri passe décisive ak fanweer ak euh, juróom-ñaar loole nag mooy Messi ca Barcelone Mamadou Mohamed Ndiaye ca stade FC Barcelone Nou Camp foofe dugal na fa lu toll ci ñetti téeméeri bit ak juróom fukk ak juróom-ñaar def nag ci ñetti téeméer ak ñeen fukki match ak ñett. George nag vraiment Messi dougal na bit mom du information. limu dougal la bari batay ba tey du information <laughs> keneen may wax leneen ñu ci walu basket ak adversaire yu gaynde yu Sénégal yu gor ñi ci tournoi qualification JO 2020 mo melne adversaire yi tiitalu ñu entraîneur ba de. Moustapha Guèye ne Sénégal am ay chance qualifié wu euh, donté sax seni adversaire euh, xarañ nañ waaye teew koo nelaw. jarul tiit nag adversaire yu bax la yu bax la. mais je pense que Sénégal tam am na potentiel boo xam ne euh, il faut ñu ñu exploiter ko au maximum euh, daaw dañu jógee ci coupe du monde bi affaire weer yi passé jógee ci coupe du monde bi euh, jël ci ay enseignement yu bari yoo xam ne war na ci jublu pour mën ko defaraat suñu équipe pour mën a espérer de participation bu bu bu baax li am solo mooy li ñu yóbbu ñun suñu meilleurs joueurs ñëw ñu def bu baax après ñu mën a ñu mën a jo jo ñu mën a jógee ak. italien ak Porto coup. mais vraiment dañu fa ak beaucoup de confiance euh, xam ne suñu defee li ñu war def war nañu am chance su euh, dem demi-finale. Euh, tournoi bobu nak no leen ko wara a aborder. Ben, def lépp daal pour suñu joueurs yi ñëw def lépp pour am ay tournois internationaux de préparation def lépp pour xam sport bi léegi am c'est on est dans un monde d'ouverture kenn mënatul kenn il faut que ku def et ku liggéey di nga fayeeku. man lolu moy suma suma suma philosophie. Euh, équipe du ay tour mais état d'esprit la donc bu ñu jubloo ci état d'esprit bi war nañu mën am résultat yi sax. Moustapha Gaye di entraîneur euh, gaynde yu basket yi gaynde yu ji euh, gaynde góor ñi Sénégal Mamadou Mohamed Ndiaye mu ngi ci groupe B bi bokk kook Italie ak Porto Rico tournoi boobee nag tournoi qualificatif ci Jeux olympiques yu 2020 fas yéene am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin jëm ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin atub 2020 ci Serbie lay amee. Sandiaga ñaaw la woon Georges Diétié Diop doon ñu faram fàcceel xibaaru tàggat yaram yi. RFM aska askan wi. reportage bi ñuy def ci xibaaru digg bëccëg gi jëmee ko ci gone yi tey ñu xooli xale yi nga xamante ne ji seen àq ak seen yelleef xam nañu ko baab ak ñoo ngi cey góorgóorlu ngir xam ko ngir seenu dëkkin wala nekkin wi gën a mën a tegu ci yoon loole dañ leen koy jàngal ci école yi euh, jàngalekat yi di seet pexe yu ñu jaar ngir gone yi gën a mën a xam seeni droit lu ci mel ne droit à la santé di sañ-sañ bi wala sañ-sañ bi gone gi am bu fo woppee mën a faju wala wàllu njàng mi wala it waggar gi ñu war a waggal ci moom di droit à la protection loole lépp suñu reporter Salimata Aw mm, dem na nemmiku ji ñaari école primaire yu nekk fii ci Ndakaaru ngir xool nan la fa tëddee reportage ku ci ne di daw ci wet gu ne ci cour bu yaatu bi bu école Allié Codou dundooy bu Gueule Tapée heure récréation bi moo jot ci seeni programme yi nga xamante ni moom la ñuy jàngee dañ leen di dugalal xam-xam bi ngir ñu xam seen àq ak yelleef mu nekk leçon boo xam ni ñu ngi koy woowee vivre ensemble Ousseynou ñu ngi ko boole parce que. xam ne moo ñuy jox programme. moo def benn leçon boo xam ne ñu ngi koy tuddee la plus grande leçon du monde. alors kooku nag bu ñu koy def. parce que ñoom bañ ko doon def. ñu bëggoon wax ñii nekk ci école yi nga xam ne mooy école nguur gi. am ngeen ay droit. waaye ñi ci biti te nekk ñu ci école bi aussi am nañu ay droit. leen image yi expliquer leen ko doon leen gën a sensibiliser nag seen digganteeg seen moroomu xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi am ay droit comme ñoom ñu gis leen ci mbedd mi am ci ñoom yërmande di xam ne ñii peut-être seen waajur yi ak ñoom seen ay waajur différence bi rek mooy ñi amuñu accès à l'école alors que ñii seen waajur yi am nañu accès à l'école publique. ca école Adja War ak Dieng bu Soumbédioune fii dañuy faral di xaar ba élèves yi wàcc rawatina ñi nekk ci classe examen yi ñu defal leen ay tee débat ngir gën a wax ak ñoom ci seen àq ak seen yelleef. waaw xale bu nekk war nga xam sa àq ak sa yelleef xale yi ñoom xam nañ ko dañ koy jàng à l'école ay leçon la yu ñuy def ci école bi même après école bi lañ koy def ak xale yi dina leen aider dina leen aider xam nañ ko déjà xam nañ ko teewul aussi ñun jàngalekat yi dañ koy dañ leen koy yokkal liñ ci jublu nag moom mooy gën a ñaax xale yi ngir bu ñu màggee xam li leen war wante ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre mooy bëccëg bi ñu jagleel Euh, càmm ci réew mi yem ak euh, juróom-benneelu yoon ñu di ko amal mu di sixième édition bi ñu war a ànd ci waxtaan wi ak Mamadou Aliou Ba di euh, sàmmkat ma nga dëkk ca Daara Jolof du Aliou Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed Ndiaye. weneen wàll wit ñu ànd ci ak ami Amidoune Diop di expert ingénieur des travaux de l'élevage Amidoune Diop maa ngi lay nuyu. sëñ bi Diop. Euh, baal ma ma dooree waxtaan yi ak Mamadou euh, Aliou Ba euh, sëñ bi ba laaj bi moo di tey su ma la doon wax nga defal ma takk ci jafe-jafe yi nga xam ne càmm gi mi ngi koy dund ci Sénégal lu doon. waaw jërëjëf foog naa ni jafe am càmm bi bari na démb balaa xëy na li ñuy wax tey ndox mu bari ci biir àll bi balaa muy am li doon jafe-jafe bu gën moo doon am ndox wante tey jii moom. Eh, ci àll bi loolu tane na trop lool lool lool eh, li tegu ci jafe-jafe bi mooy li ñuy wax eh, feebaru jur gi feebaru jur gi jur gi ba tey mu ngi feebar surtout jur gu sew bi xar yeeg béy yi ak yooyu te gis nañu également yenn feebar yoo xam ni xëy na xamuñ ko woon mu ngi tey ci biir àll bi ci xar yi surtout bon am na ay feebar yoo xam ni ay façon yu bees ak mbaam yi aussi bon dégg ngeen fan yële walla temps yële feebaru mbaam yi ak fas yi loolu feebar boobu aussi ci jafe-jafe bu rëy la eh, beneen bi bi bi gën a jàmp tey ci jafe-jafe mooy am lu jur gi dundee eh, dégg naa ñu bëri naan eh, mboob bi lu jaadu la ndax baykat yi wala sàmmkat yi dañoo war a njaxlaf di mboob di denc bu demee ba ñax mi raar ñu koy jox jur gi loolu loolu ñàkk xam la je crois wala wala bañ am expérience lu tax euh, benn mooy que booy mboop ci àll bi fii wax xoore euh, euh, sawaaw fi jur gi lekki ci àll bi boo ko mboobee li ngay mboob du seulement ñax mais da ngay mboob li nga xam ni mooy jiw bi da ngay mboob li nga xam ni mooy eh, ay ay ay doom yi nga xam ni eh, yu mel ni ay picc wala yu mel ni ay ay lëppaa lëpp wala yu mel noonu ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy jur ci ñax mi te loolu yow boo booy mboob da koy da ngay andi lépp muy benn ñaareel bi dafa am loo xam ne aussi mu ngi dund ci non seulement mu ngi dund ci ñax mi mais mu ngi dund ci suuf si fi fi ñax mi nekk ndax bu ñax mi amul fa eh, mënu fa dund lu mel ne ay barak lu mel ne ay mbëtëk lu mel ne ay janax ak yooyu yëpp il faut ñax mi nekk foofu pour mu dund kon nag boo mboobee yaa ngi mel ni yaa ngi yaa ngi yaa ngi rey environnement bi loolu muy benn loolu ñu bëri vraiment duñ ko jël en compte. très bien beneen bi. Mhm. mooy que boo boo mboobee booy mboob na nga mboob fi nga xam ni moo jege dëkk bi wala nga mboob sa tool mais àll bi nga xam ni nit ñi foofu la ñuy sàmm nga dem ba ci àll bi. nga mbopp surtout ñi nga xam ne ñi ñi mbopp mooy ñi nga xam ne dañuy jóge ci kaw yore seen mbaxana yu rëy wala seen kol yu rëy andi ay ay ay ay camion ci mbopp li nga xam ne loolu jur gi dundee te ñii ñii dëkk ci àll bi ci jur gi la ñu dund. Eh, dundee eh, Mamadou euh, non ponk boobu jàpp nañ ko ci gàttal daal. waaw mooy xontub jur gi. ak jafe-jafe yu muy am dinaa dellusiwaat ci yow may ma ma dem ci euh, Amidoune Diop. Euh, sëñ bi Diop dégg nga dégg nga Mamadou Aliou Ba li mu wax ne ay jafe-jafe yoo xam ne secteur élevage mi ngi koy dund ci Sénégal tey bu fekkonte ne dañu ne la nga xelal gaañe pour ñu mën a génn ci jafe-jafe yu baax boog ñu am luñ ci wàññi lu muy doon yan yan système nga gis ne war nañ koo teg pour gën a càmm gi. waaye nag eh, nit ki su dee dawal dara comme am na lu ko fa di waxee nga soññ ko ni ko jaajëf dafay yokku service élevage dafa yàgg yëngatu ci wàll càmm gi maanaam jàppale éleveurs yi ci feebar. parce que première contrainte gàllankoor bu njëkk bi ci càmm gi moo doon feebar bi rawatina loolu ñuy tuddee caar loolu yàlla dimbale noonu am na léegi fanweeri at léegi loolu dañ na. ba organisation mondiale de la santé animale jox nañu carte statistique si léegi pour wax ni léegi amatuñu ko donc sunu ndawal bi sax ñii ñuy dem di jëgaane ñun di sunu ndawal gi am na am réew yu ko soxla ndax ñun soo ko soxla ñu di viande piiw maanaam tey sunu eh, ndawalu eh, nag yi mën na dem bitim réew donc eh, ci côté boobu mën naa wax ni ci jur gu mag yi jur gu ndaw gi dëgg la am na aussi caara yooyu maanaam test de petit ruminant waaye yàlla def na ni service vétérinaire yi ñu cee góorgóorlu ànd ceeg uh, ISRA ISRA bi nga xam ne